mel na ni bu waxee rek daanaka ñun mel na ni eh, waxaaleel nañu dañu nag ñaare lu baax moom dadul doy mu mel ni nag bis bi moom nañ koy waxtu ne nañ koy defee ak nañ koy màggale du soppiku heure bii lay doon ci date bii lay doon juróom yi fan ci ndayu koor bi muy noor muy nawet nii rek lay doxe kon ñi ñaan ci daraje suñ Touba moom mi nga ne moo fàgg woon liggéey bi ci digganteem ak yàlla ak yonente beeg sëriñ Touba Cheikhul Khadim ñuy ñaan képp ku fi ñëw suñu borom fas say xaaju saaxiran wa baatinan te jàpp ñu ba liggéey bi ni mu ko liggéeyee ci sell yiw yi ak lépp yàlla boole ñu ko mu jëm ëllëg ndax moom fàggu woon na loo xam ne waaye fii taxu ko woon a jóg mel na ni ëllëg la doon fàggu ndax mel na ni aw turam muy sëriñ Al Seye ji àgg na foo xam ni ci saaxir si nii boo koy xool sax ak heure bi mu jógee jëm ci sëñ bi da lay xaw a jaaxal waaye nag ku xam sëriñ bi xam mbiram doolu du la jaaxal mu mel ni tamit jamono ji eh, ni mu bindoo comme ni ñu ko waxee léegi ci doy gi waar ak nit ñi ñi tegu ci yoon ñi ñàkk tegu ci yoon euh, loolu xañ na lenn li dañ koy jàppee muy coobare suñu borom leneen li ci des day mel ni àdduna bu fi yàgg rek tey ñaan suñu borom mën na laa gindi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax suñu borom dane kon innaka laa tahdi man ahbabta bu ko la soob rek mu mel ni nga mel kon daal li ma ci soññee mooy ñu gën a góorgóorlu ci lislaam ji gën a góorgóorlu ci njàngale mag ñi gën góor góorgóorlu ci bennoo góor góor góorgóorlu ci fonkante ak jàppante te yàlla rek tax su ko defee kenn ku nekk boo nekkee ci la nga war a nekk eh, topp ci sa ñaari jur tey sakku seen i ngërëm ak seen i ndigal lépp mën naa sotti ndax yoonu murit moom day yoonu toppante loolu sëriñ bee ko sëriñ bee ko fàkk day mel ni képp ku fi nekk te toppante woo sax gàllankoor mën na laa dab ma koy tàmbalee sama bopp ndax sëriñ bi moo fàgg loolu te noonu rek lay doxee tamit nag. kon daal li nga xamante ni bii moo ci nekk na ko na ko na ko sëñ bi ñaane woon na gone yi na mag ñi yërëm gone yi gone yi wekk mag ñi noonu la ko jàngalee woon waay <coughs> jamono nag tënku na ndax lislaam moom <coughs> fam ne woon ba léegi maa nga fa sëriñ bi tamit nam doon doxee ba léegi mi ngi doxe doxee ndax sëñ Blaat daana wax ni sëriñ bi ma nga fam ne woon ba léegi ku def la ñi fi jiitu woon defoon mu defal la lam defaloon ñooña kon day mel ni ba léegi nii rek eh, maanaam xañ na wutiin eh, yu mën naa soppi ko waaye nañ ko amee moom ba léegi ku ko sàkku amee ko noona loolu mooy sëriñ bi te loolu yomb naa xam ndax am na ci ñoo xam ne tey jaar nañ ci doomi Seexul Xadim mu defar leen te jamononte wuñ ak sëriñ Tuubaa te day mel ni boo ko dee xool ña ña fi sëriñ Tuubaa jamono doo ñu defar leen li doomi Seexul Xadim yi defar bi noonu lañ mel muy mbooloo topp leen te seeni maam sax xamuñu woon fa yoonu murit féete loolu am na fi jarul lim loolu lépp nag baaxu sëriñ bi la ak ak ay mayam waaw ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax fonk lislaam ji fonk taalibe gi te sax ci dakk te mooy tux yàquwaayu jamono surtout nag tubaab bi nga xam ne léegi dañoo mel ni léegi eh, ngànnaay yi léegi xel lañ ñi ci doxee da mel ni ki lu jëm ci wàllu jumtukaayu adduna yi muy internet bi ndax damaa mas a toog ak sëñ Mamour Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal yàlla yàlla yokk leeram wax bisub àjjuma ñu julli àjjuma ba noppi mu am góor gu toll ci juróom-ñaar fukki yor portable mm-hmm. di manipile mm-hmm. am doomam jum toogal doomi sëñ Mamoor di ko wan ni mu koy defee mm-hmm. sëñ Mamoor ne ko da am ci këf yi mu ne ko waaw mu ne ko ah, boo ci amee dootoo jàngati ñaar fukki si bal xuraan par bés waaw ah, ko boo ko amee dootoo jàngati ñaar fukki si bal ñaar fukki si bal xuraan ci ngay dëkk rek te loolu yomb naa xam ndax fi nekk nii saytaane sim ñu roof ëpp na ndax fexe nañ ba neexal ko ci say xol ci ci sunuy xol fexe nañ ba boo yoroon jukki jukki bi alxuraan di waqaf bu message bi ñëwee li fekk liiroo ko doo am jàmm waaw loolu lépp seytaane la fexe nañ ba tamit ba nga xam ni waxtu wu ne dañuy fexe ba nga dëkk ci ba boo waroon a xëy suba nafar alxuraan mbaa nga jàng xasida mbaa nga doxi lu baax loolu mën na laa tënk ba boo ci yendu woon douze heures de temps day mel ni benn waxtu nga ci def yàq mi ngi yàqal mi ngi mi ngi yàqalu bare bare loola ku nekk foo nekk war nga ko bàyyi xel def ko muy métier muy def ko muy loo xam ne jumtukaay la nii rek wuyu ak ndax lu baax a ngi ci lu bon a ngi waaye nag ñu ngi ciy sàkk lu baax ñu ciy sàkk lu baax li waaye mu bañ ñoo yàqal dara waxtu julleeg waxtu jàng alxuraan waxtu jàng xasida waxtu def lu baax ndax tubaab yi moom ngannaa yu ñu yor saa ñu di ko gën a daas te duñ bàyyi mukk duñ bàyyi mukk kon yàlla ñu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla dolli kaaraange yàlla nañ dégg ndigalul Seexul Xadim te dégg am jàngaleem te loolu rek bu amee yàlla mën naa dogal dinañ maanaam dinañ tëlu bëree bëri kon yàlla nañu yàlla kàttanal eh, bu baax a baax a baax waaw kaddu yi na xam naa moom kaddu yi kaddu yi kaddu yu gàtt lay doon rek sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax a baax a baax ci barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum